di wax suñu làmb ji aussi nañ ñu ko ubbil ñu dàq stress yi dellu ci suñuy po làmb stade arène nationale vingt cinq mille places la nañ ñu may dix mille places nit ñi jël distance soriantoo lool mesure de barrière yi ñu rax ñu ñu takk masque raxasoo suñu gel ñëw di tëgg làmb Sénégal jëm ca kanam sport yi ñu fi ubbi yëpp d'accord ay sport yu am solo la mais làmb leneen la kon nag loolu la ñuy ñaan président daal di ko ñaan ministre des sports itam na jàppale waa làmb suñu waxee loo xamante ni dafa jóg gi dal ci waa làmb te ministre des sports tel koo yëg na woote conférence de presse wax ci loolu te ñu bàyyi parparloo gi par parparloo day tasum réew yal nañu yàlla dolli jàmm amin Pierre Palla mais li ñu gën a yéem mooy est-ce que li tax ñuy joxañ tuuma saa su ci njabootu làmb ci yu mel ni est-ce que njabootu làmb amuñu ci part de responsabilité parce que président bi fi nekk actuel muy président Macky Sall euh, bi muy campagne ñan ñoo ko doon campagneel ci njabootu làmb xam nga loolu. histoire la làmb musul tàggoo ak état. ca Senghor. Senghor. jamono yooyu mbër yi xewoon ñoom lañ daan àndal Abdou Diouf ku nekk gisoon na jaloore yi mbër yi daan def di ànd ak moom muy recevoir mbër yi Ablaye Wade bi mu ñëwee moo fi njëkk a woo mbër yi ak écrit yi may leen xaalis bu dul jeex neen toppatoo leen seen bopp. bi Balla gay xeexee ak ki nga xamante ni xuloo astafurla ak Modou Lo Ablaye Wade da leen woo ci palais bi jubóole leen ku nekk gisoon na temps socialiste yi. ñoomin yaa rax mu tubaabu joor ñu daan topp tanoor ji te loolu yëpp dafa rafet Macky Sall am na mbër yoo xamante ni ñoom moo ma faroon ba mu yegg si fii mu yegg si kon mbër ak euh, lële ah, yàgg nañu ak euh, état waaye lu jëm ci rébellion maanaam yor ay yet di dóore ak di xeex dafa sensible ci côté làmb parce que tey bu la nit rombee fii rek tol ni ko neex ñu ni kii xanaa mbër la ponkal bu la rombee fii rek sol blouson yaaxar yaaxar yi ñu ne xanaa kii mbër la wala xoolal mbër ma la di dem yow kii ban mbër la waaw na dem bëre ji wala kee mooy ban mbër noonu mu noonu mu demee ci xelu nit ñi tey bu yu mel nii xamee ñu dem wut ay ponkal Gris Bordeaux wax na ko wax na leen kiñ ko doon nuróoleel sal ba mu am ca parcelle wax leen ni mu tudd pourtant Gris lañ ko tegoon noonu ñu ko tegee Gris noonu la ñuy gisee ku nuroog Balla wala ku nuroog Sa wala ku nuroog tonnerre wala affaire ñu daan di mbër yaa nga fekk déedéet ñi dañoo gudd rëy rek mm. waaye gudd rëy taxut doon mbër. Modou Lo tollu nen doon roi des mm-hmm. ana bàcc seras mm-hmm. ana Siteu mm-hmm. ñooñu kenn réussi te doon nga mbër doon nga champion kon gudd rëy taxul a doon mbër nañu moytu ku rëy rek ñu ni mbër yaa nga man daal maa ngi eh, woote wax ni nañu may jàmm réew mi waaye tamit nañu bàyyi seen xel ni lii di xew nii guro bara yooyu buñ leen askane làmb parce que du waa làmb ndax xam naa suñu bëree bëri nag ñoo xam ni seen i tur sax listé nañ ko mi ngi ci télévision yi suñu demee dinañ aller vérifier dinañ xam ndax ñii ay mbër lañ wala duñu ay mbër te ñii mënuñu na bu ñëpp leen xam nañ dem seeti leen ailleurs te bañ a ñëw ci secteur làmb seet leen fi voilà. jërëjëf Père Palla ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. ci dalal ma man itam maa ngi rafetlu wasaare parce que ñoom it tur wi rek muuyu na borom. ñi ngi wasaare tey ñu bëree bëri ñi ngi am ay expérience ci làmb wala di ci xam dara seen nangu liggéey ak seen takkute bi ngeen di def di ñëw seet si nit ñi jël leen ñu wax seen xalaat loolu bokk na ci lii wasaare. kon nag wasaare boobu tur wuyu na borom wasaare daal ca kanam. jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum